membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën jëm ci kanam membre yi ci groupe dégg diine alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah dañuy ñëw rekk ngir am benn taxaw seetlu bu ndaw bu ñuy taxaw seetlu jublu si tamit nasiha muy laay biir ak conseil suñu bopp ak suñu ay mbokk jullit fan yi ñu nekk dafa am suñu benn mbokk bu doon yëngatu ci wàllu jàngale ak yar ak woote ci lislaam ñu koy tuddee Oustaz Oumar Sall yal ko yàlla sàmm am ay nit yu ne woon dañ ko porter plainte ndax li may wax à chaque fois dama koy def à la conditionnelle ndax xëy na dafa wax loo xam ne nee nañ dañ jàpp ne daf leen cee ŋàññi ñu mer ci loolu dem boole ko ak yoon tax yoon jël ko teg ko loxo mu nekk loo xamante ne lu ñu bett la waaye lu ñu naqari la tamit ndax lu ñu mënta comprendre mooy ci lislaam bu dee dañuy jàngat xam-xam am benn doxalin. ak ay mbir yoo dañ koo saxal ci diine nit kiy jàng xam-xam di gëstu mu jàngat xool mbir moomu xool tegsi yi xool teg yi gis na loolu saxul ci njàngaleem lislaam bokkul ci njàngale yonent bi alayhi salaatu salaam mu leeral loolu léegi loolu ndax lii war a nekk li ciy topp mooy ne dangay jël yoon teg ko ci kaw kooku da ngay porter kooku plainte wala da nga koy jël tëj ko ba léegi mënoo comprendre démarche bi bu baax a baax lan lañ ci jublu ndax bu fekkente ni dañoo tijji bunt bi mu nekk benn précédent léegi lan lay jur mooy léegi lépp lu nit saxalati ci lislaam ne sax na ne moom ngëm-ngëmam la bu nit ñëwee ne lii saxul ci lislaam mën na dem porter ko plainte ñu tëj ko wala boog mbir mi dafay mel ne mbiru ñii sañ nañu lii am nañu lii ñii sañuñu lii amuñu lii ndax toog nañ fi fii dégg kenn mu toog di sëriñ ci dëkk bi mbooloo mu bari war ko mu ne man je suis contre Rambil Jamraat mu ne affaire ceddo dong la Rambil Jamraat dafa bokk ci yi nga xam ne yu gën a essentiel la ci ay jëf yoo xam ne dañ koy def ci nit bu fekkee dafay aj mu jël juróom-ñaari doj am foo xam dañ ko yebal ne ko na ko fa sànni mu am lu muy symboliser yonent bi alayhi salaam jàngale ko jullit ñi ànd ak moom def ko ba suñ jamono ji jullit ñi di ko def mu nekk loo xam ne lislaam ñépp a ci dëppoo kenn mosu ko remettre en benn waay dëgër fit gu toll ne toog ñépp di ko dégg moom waxul sax ak ay nit lu yonent yàlla bi jàngale ouvertement mu ne moom daf ko contre ndax yëfu ceddo la léegi loolu lan moo ko gën a offensant lu mel noonu xam nga sax yow waxuloo jëmale ci ay kuréel ak ay kër diine wala yooyu nga fekk njàngale bu sax ci lislaam bu julit ñëpp ànd di def nga toog jël ko sànni ko fële ne lii baaxul yëfu ceddo la ndax kenn sëqat na bi loolu amee ndax kenn wax na bi loolu amee pour ñu xam rek dëgg-dëgg nit ñi bu fekkee dañuy mer kan la ñuy meral ndax lislaam moo leen tax di mer ndax yàlla moo leen tax di mer wala yonent bi moo leen tax di mer wala ndax ay règlement de compte la yoo xam ne leneen moo nekk ci ginnaaw leneen lu nekk ci ginnaaw loolu dañ koy ragal lépp mënuñu koo wax ndax xam nañ ni oustaz Omar fan yu mujj yi discours jëmoon na ci wàllu àtteeg maandute bay interpeller yenn kilifa fii ci réew mi ragal nañ ni discours bu mel noonu tamit xëy na am na ñu mu déranger ba tax na mbir mi tey ni mu demee ni mu demee ko mais man mënuma comprendre benn masala bu nit di jàngat ci lislaam wax ci li nga xamante ni bii moom la ci xam ci xam-xam yem ca tuddul benn tur tuddul benn këru diine askanelawul kenn waxam ay nit jël ko solal ko seen bopp yoon jël ko teg ko loxo ci loolu léegi bu dee dañuy àtte masala boobu lan lañuy wax bu fekkee dañ ne ko li nga wax sañoo ko wax loolu kon dina nekk précédent bu dangereux boo xam ni képp kuy jàngalee ci lislaam di am looy saxal ak looy teggi wala ñaari jullit yu wuute ci masala ki ne man saxal naa lii ki ne man saxaluma ko kon boobaa dina am ci ñoom ñaar ku ci yoon di teg loxo ku ci yoon di jàpp ndax ki ne man saxal naa ko gëm naa ko ka ca des na ko gëwuma ko ki ko gëm bu ko neexee dem porter ko plainte ñu jàpp ko bu fekkente ni yoon la boo xamante ni ñëpp ñoo ci yem kon loolu dina nekk précédent bu dangereux ak buñ koy àtte ci kaw ban base lañ koy àtte yow yaa wax ne li saxul ci lislaam indi sa tegtal tegtal bi fan lay dellu ci àtte yi lislaam wala ci yoon wala ci lan lañ koy àtte mu nekk ay bunt yu ñu tijji yoo xam ni wax dëgg yàlla nekkul lu dal xel ci ni suñu réew di doxee ndax depuis un certain temps gis nañ benn stigmatisation boo xam nañ koy gis ñu koy def di ko jëmale ci ñuy dund sunna muy ahlu sunna fii ci senegal bu ñu bëggee diaboliser nit sax dañ koy tuumaal ne ko ci ñoom la bokk mu mel ko mu bokk ci ñoom crime la te ñuy ay sénégalais dëkk ci réew mi yaroo fi am fi ay cër comme ni fi ñëpp amee cër kenn déggu leen ñu fiy def lu bon di fi def lu ñaaw tooñu kenn. dérangé wuñu kenn ci yar ak disipline la dund ci réew mi depuis biñ biñ fi nekkee ba léegi nekkuñu fi di exploité tamit kenn sollicité wuñu état ci dara lu ñuy def ñu ngi koy jéemal seen bopp moo xam néew na wala bari na waaye ñoom la ñuy nekk di leen stigmatiser di leen diaboliser suba ak ngoon te loolu dafa nekk ci diggante ñaari kër yoo xam ne xam nañ leen ñu jiite wàllu àdduna ak ñi fi nekk yore ay kër yu ñuy tuddee ay këru diine ñaari kuréel yooyu ñoom fi mu nekk nii réew mi ci seen loxo la nekk te loolu lu yàgg la ku nekk xam na ko képp ku fi nekk di dund ci réew mi ñu jàpp ne bokk ak ñoom ay xalaat wax dëgg yàlla dina am ay jafe-jafe yoo xam ne di nga ko jànkonteel ci réew mi ci loo wax ak loo waxul loolu nag li may wax rek mooy ñooñu ñuy stigmatiser noonu nañ bàyyi xel yàlla wax ne wa nuridu an namunna ala alladina studifu fi l ard wa najaalahum aimmatan wa najaalahum alwarithin ñooñu ñuy néewal doole amaana am na lu yàlla namm ci ñoom te léeg-léeg nga sous-estimer nit fekk na yaa ngi def erreur bu rëy rëy ndax ñu bari ni jàppee kuy dund sunna boo ko ci ahlu sunna mooy kuy solo comme xëy na ni ma solo sol mbaxanaam am yenn màndarga yu feeñ ci moom déedéet bari na fi ci réew mi ñoo xam ni ñi ngi nekk ci yoonu ahlu sunna wala ñu nekk ay sympathisant ci ahlu sunna yoo xam ni doo ko mën a ràññee doo ko mën a xool doo ko mën a gis ci seen sol ak liy feeñ ci biti te ñooñu kenn xamul lu ñu toll ci réew mi ba tax na man lu may wax rek mooy bu ñu jógee ci xew-xew bii ahlu sunna war nañ gën a organiser wu waat ba gën a peser ci tànn yi ñuy tànn ñi nekk ci réew mi di ko doxal ak kan lañ fiy jiital ak kan lañuy denk suñu réew ndax soo ko deful da nga fi nekk di subir conséquence choix wu ñeneen ñi ñeneen ñi seen choix yow après da ngay toog di xaar ñoom ñu def seeni choix selon ñoom seeni propre intérêt après conséquence wu seen choix yooyu yow ngay toog di ko subir yow di ko dund muy nekk ay mettit yu rëy yoo xam na nga koy dund pour nag bañ fi nekk di subir rek di subir ak di constater ay dégâts da ngay jéem a fexe peser tamit ci prise de décision yi ci ne citoyen nga am nga sa carte mën nga def choix xool même bu fekkente ni mënoo soppi mbir mi nga wàññi yàqute walla nga yokk mbaax ci ñun valeurs yi ñu lislaam jàngal di ay valeurs yoo xamante ni mooy def mbaax ci nit mooy baaxal société valeur yooyu ñu xool ki ko gën a bari ci ñi fiy nekk di wax ñu jëmale suñu kàddu ci moom te loolu ne lu déranger Occident la ak ñi nga xam ne ñi nga les occidentalisés ndax ñoom dañ jàpp ne diine yoonam nekkul ci ñu àdduna di doxee ndax ba ñu weddee yàlla ci mbiru yàlla lañ ne kon nañ jël lépp ko pouvoir jël li nga xamante ni bi souveraineté ñu nangu ko ci loxo jox ko ne ko ko lu la légui doomu adama nek ni moy kilifa ak bopam go xamni kenn yilifu ko moy xol lu ko neex mu def ko motax ñu naan le peuple le seul seul le peuple est souverain souveraineté yàlla la yàlla mi ñu sàkk indi ñu fi lépp lu ñu am mu jox ñuko buñ fi joggé taxaw ci kanamam rendre ko compte yàlla mom rek mo souverain mais ñu bari xamuñu ne philosophie bobu nga xamne moy togg li ñu tuddé laïcité ak sen démocratie démocratie bu moderne bii xamuñ ne messianisme la bo xam ngëm-ngëm la pas pass la bo xam diine la li Vincent Payon doon wax naan une religion pour la république te ku mel ne <clears throat> Junius Frey euh, théorisé woon ko depuis ci 18e siècle bi bi ñu def seen révolution bi après révolution bi tuuti si livre bi nga xam ne bindoon na ko yaakaar naa 1793 la parce que Junius Frey bi muy ñëw France 1792 la ba 1794 ñu guillotiné ko Robespierre moo ko guillotiné lim bindoon mooy une philosophie sociale dédiée au peuple français lim ciy wax mooy rek li nga xam ne mooy fondement wu religion bi nga xam ne mooy diine ji nga xam ne mooy taawu seen république bi te loolu lañ tuddee les valeurs de la république bi nga xam ne mënut a xajoo ak diine. kon bu boobaa du la bett boo gisee nit koo xam ne am na ay valeurs l'islam yu nekk ci moom ñu ñàkk ko mën a supporter ñàkk ko mën a tolérer jàpp ne àggam ci nguur wala jegeem nguur menace la ci ñoom te boobu dañ koy wan. askan wi comme quoi ne yéen la nekk menace ci yéen fekk ne du menace ci askan mais li ñu ragal ñoom xam nañ li tax ñu ragal ko li ñu ragal mooy lépp rek loo xam ne dañ caa gis yàlla wala ñu foog ca yàlla ndax nit ki boo noonoo yàlla rek dootoo mën a supporter koo xam ne dafa ànd ak yàlla loolu nag mooy mbiru tubaab yi ak képp koo xam ne dem nga di ànd ji ak ñoom léeg-léeg ci ay complexe lay tegu yoo xam ni wala sàmm sa intérêt yoo xam ni des fois nit ki mën na bañ a xam sax dëgg-dëgg doxalin boobu tubaab yi am ci nit ñuy doxalee ci àdduna bi li ko lal ndax y a des soi-disant intellectuels yoo xam ni taxaw gëstu gëstu bu xóot sax dëgg-dëgg ci yooyu duñ ko def mais lépp lu tubaab yi di wax wala ñu nekk da ngay gis ñu ànd ci ak ñoom di stigmatiser ay nit di wax wàllu salafisme salafisme ñenn ñi xamuñ sax sens bi la yow bu fekkee da ngay jaboliser salafisme te tey ku fi jugoon tudd benn tarixa ci tarixa yi xaw koo jaboliser di stigmatiser nit comme quoi ne ci tarixa boobu la bokk réew mépp jug ku ne di wax te lii lii wane ne àdduna bi ñu ngi nekk ci àdduna boo xamante ni dafa wëlbatiku dafa warangiku li ñuy tuddee l'inversion des valeurs l'inversion des valeurs bi yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ci bu demee ba mu jóg jamono moo doon wax naan sinuuna xaddaat nekk ay fan yoo xamante ni li nit ñi di dund dafay mel ne benn réalité virtuelle boo xamante ni ñu tuddee réalité dëgg-dëgg lu ci bëri du nekk dëgg ci li ñuy wan nit ñi di leen ko wax ci wàllu manipulation bi dem ba nit ñi liy dëgg ñu jàppee ko lu dul dëgg lu dul dëgg ñu jàppee ko dëgg ku dëggu ñu jàppee ko ku dëgguwul ku dëgguwul ñu jàppee ko ku dëggu ku jug di wax ci nit ñoo xamante ni kenn waru leen woon di déglu ni la ko yonent bi alayhi salaam résumé ci xadis boobu pour gàttal rek léegi nga gis référé wu ci magul islam yu njëkk yi ci premier siècle yi ci génération yu njëkk yi nga xam ne yonent bi moo leen yar ñu tënk woon ci njubam yàlla seedeel leen ne gërëm na leen fekk ñi ngi dox ci kaw suuf nit ki ne man lislaam bu authentique boobu ci lay jàpp ndax xam naa ne mooy yoonu mucc yi ñu fi sos di ko wax nit ñi ne ci man loolu doyuma sama yoon mooy delluwaat ci ñooñu def leen sama royuwaay loolu mooy salafiya loolu mooy salafisme tubaab yi jël ko def ko benn baat bu diabolique boo xam ne di ci propagande ci àdduna bi ci nit ñi def ci bépp noon boo xam ne tubaab am na ko bokk na ci li muy gën a jëfandikoo pour détruire la mooy propagande mooy ëlëmal xelu nit ñi fexe ba ñu jàppee la ku bon fexe ba lu bon la lay wan ci ñoom lu bon la leen di wan ci yow te itam da leen di tiital ci sa mbir ba ñu ragal la bu ko defee mu mën la liquider ndax dara gënul yomb nga tam sa noon dëmm ba nit ñi ragal ko nga liquider ko léegi bu ko defee nit ñi dañ lay seetaan ak moom loo def ñu ne yelloo ko machiavélisme bi nga xam ne gis nañ ko muy dox ci àdduna bi nga xam ne teguwul ci ay éthique teguwul ci moral teguwul ci valeur teguwul ci rien du tout ci ay calcule la tegu yoo xam ne ay pexe ak ay nasak noo ci rek ci la tegu loolu nag ñun julliti lislaam yarewuñu noonu ñun lislaam daf ñoo yaral yar ci xol yu set xol yu sell yoo xam ne dañuy dëggu ci suñu mbir suñu biir ak suñu biti moo yem loolu nag boo ko jëflantee koo xam ne moom xamul loolu dangay xaw a niroog ku naïf ci ni ngay doxalee mais naïveté waruñu dañu nekk ci àdduna bu tëradi ak doxalin yu doy waar yoo xam ni baax na jullit bi tamit wane ne moom njaacaar la comme ni ko lislaam yare suñu yonente alayhi salaatu salaam stratège bu mag la woon daawul devo dévoiler ay plan bu daan jaamaarloo ak noonam ci ay stratégie la daan jaar yoo xam ni noon bi du ko mës a jekku du ko mës a bett bu mësaan di génn Madina jëm droite côté gauche lay génnee bu demee ba génn dëkk ba def benn détour bu mag daal di soog a jël yoon bi mu bëgg jël pour képp ku koy espionné mu lëre la daan na jëfandikoo ci stratégie loo xam ne dem na ba jekku ci noonam am ci moom li mu bëgg te tuurul deret li tijji màkka stratégie la ci jataay bi mu toogoon ak waa màkka def fa ay négociation ba am fa accord ñu bind fa signé fa benn pacte ci sulxul xudaybiya te ñu jàngatoon ko fii ci fan yële weesu te ñu bari ñàkkoon mën a comprendre yi mu fa nangu woon yépp te mu xamoon li muy nangu lan la waaye bi ñu demee ba ci yoon bi di dëpp yàlla xamal ko ne ko jox na ko ngañaay jox na ko victoire bu rëy rëy victoire boobu teguñ ci lu mat ak at ak tuuti yàlla tijjal ko li nga xam ne mooy màkk mu am ndam lu rëy loolu nag ñun dañoo war a tënku ci njàngale moomu provocation yi ñu bañ cee wuyu ànd ak lucidité ci li ñuy def suñ yonent lu ñu jàngal mooy laysa shadidu bi sura innama shadidu alladi yamliku nafsahu inda alghadab njàmbaar nekkul ci mer di ko wane di wane sa doole di wane sa kàttan mais da ngay am retenue am lucidité dal xool li nga xamante ni mooy xel mu rafet li nga xam ne mooy sagesse di xikma nga def ko xikma mooy fi'lu ma yanbaghi ala alwajhi alladi yanbaghi mooy li ñuy wax wadu kulli shay'in fi mahallihi mooy nga def lu jaadoo def def ko anam ba nga xam ne moom la jaadoo ñu defee ni ko ci bërëb ba ci temps ba ci defin ba ci lépp nga sàmmonte ak loolu loolu bu boobaa ci la ñuy wax ne yow li nga def nii xikma la daanu ci piège yu ay provocation war nañ ko moytandiku te dëkk bi fi mu toll nii ak tension yi ñu fiy dégg di wax bay sax di ci dugal affaire diine nañ moytandiku procès wu suñu mbokk bi di oustaz Omar ñu jëfandikoo ko pour ay provocation mu am ay dérapage am lo xamanteni dinañ ko ci jallale ci walu propagande ak walu manipulation nañ ko moytandiku bu ñu nangu top tombe ci piège bobu buñ fa démé nañu dem ngir teewe teewu teewul suñu mbokk julit ñu téwal ko wan ko suñu soutien mais buñu ñu nangu kenn duñu duggal ci ay provocation nañu and ak yar and ak dal ba yefi jeex ñu jógaat delu wat suñu suñu ay kër te ñaanal yalla mbokk bi te bayyi lepp ak suñu borom xam ne yàlla rek moo mën a fayu waaye nag dafa nekk ne yàlla boo jëflanteeg moom doo yàkkamti waxoon nañ ko fi fële ci bi Moussa di ñaan yàlla ci Firawna ak bew gim bew Haaruna di wax amin dafa pare ci ñaan ga yàlla ne ko xadu ujiba daawatukuma fastaqima yàlla nangu na seen ñaan bi na ngeen nag léegi daal di tegu yéen ci njub nekk ci lu baax li ngeen war a nekk te li ci des ngeen bàyyi ko yàlla yàlla nangu na ko foofu la yàlla yem ak ñoom kañ la yàlla di exécuter loolu ñoom seen yoon nekkatu ci toogaat nañ ñeen fukki at ginnaaw bi 40 ans après yàlla soog a régler mbiru firaaw na ndax yàlla mbiram lépp ci yoon la koy teg étape par étape ba mu àgg fi mu war a mu lijjanti ko kon kuy jëflante ak yàlla doo yàkkamti bu ñu yàkkamti nañu def li ñu war def yàlla mi ngi gis lépp gëmmul nelawul te yàlla kenn tawu ko kenn du ko rëcc moo tax du yàkkamte ay mbiram ñaanu ku ñu tooñ yàlla du ko delloo te gëm naa ni mbokk bi dañ koo tooñ moom ak ñeneen ndax lii du moom rek la fi dal dañuy bañ a dugg ci ay détails da nga fiy wax dara ci lislaam lu leer lu kenn du laam-laamee ci ay tegtal yu leer benn waaye jaaxaan fële ci këram ci climatiseur am li ngay wax neexu ko sa discours bi ngay tenir arrangé wu ko arrangé wala ay intérêt ak xëy na fi mu jekku nit ñi yaa ngi yéen nit ñi ci yenn yi mu daal di am fu mu la jaar ak gaa yi ñu indi la ay fitna def nañ ko fi defati ko fi ay nit yoo xam ni defuñu lu jottali kàddu yàlla te bu kenn jógee ci ñeneen ñi wax lu ko neex ci lislaam toog defule wax lu ko neex nit ñi kenn du saqat kon loolu nag bu fekkee dem nañ ba di ko dund ci réew moo xamante ni suñu réew la ñu dëkk fi wàllu yaanawuñ ci defuñu fi dara suñu réew la comme ñeneen ñi ci des ñu gis traitement bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñu beral par rapport ak ñeneen ñi ak stigmatisation bi ñu gis war nañ tirer ci lii ay conséquences bu lii jàllee ñu toog waxtaan suñu biir xool naka la ñuy defee bloc ndax wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhhaba riihukum bu ko defee ñu jéem a fexe xool naka la ñuy mën a peser ci prise de décision yi ci wàllu moo xam vote beeg wàllu choix yeeg wàllu yépp ndax démocratie moom lobbying la rek voilà léegi nag loolu laa amoon loo xamante ni moom laa ñëw di ko fàttalante ak sama mbokku jullit di wax ne oustaz Omar ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla taxawu ko bu ñu am njàqare ci moom nañ am njàqare ci suñu bopp waaye tamit li nga xamante ni moom lañ gis ci ne réew mi di doxee ci genre mbir yu mel nii ay mbir la yoo xam ne ku ci tiitul rek da amul seetlu ba tax na li ñuy wax mooy na mbokk yi ànd ak dal bu fekkente ni war nañ demaat amaat audience ci tribunal bi. ñu dem teew toog silwise wane yaru islaam ndax wa innaka la ala xuluqin azim akmalul muminina imanan axsanuhum xuluqa ñu wane loolu beneen bi ci des mooy bu provocation yi ñëwee ñu wax salaamun alaykum la nabtagi aljahilin ñu wax xudul afwa wa amur bil urfi wa arid an aljahilin ñu tënku ci loolu nga xam ne moom la ñu lislaam jàngal yar ñu ko te loolu li ñu ko mën a may mooy am maîtrise ci suñu bopp mooy yar suñu bopp ba dominer suñuy bànneex ak suñu bakkan jëfandikoo suñu xel te bañ a jëfandikoo suñu xol ñu ñuy def loo ay erreur après di ko exploité waat mu ñuy indi lu ñuy yàqal nañu moytandiku loolu suñu kéemtalaay kàttan mbokk yi kon lii lañ amoon loo xam ne dañ ñëwoon doon ko fàttalante di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu doolu ñu defal tawfiq hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain والسلام عليكم ورحمة الله فإن كل محدثة بدعة بدعة وكل بدعة ضلالة ضلالة وكل ضلالة في النار في النار نعوذ بالله من النار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم danoo fekkoon suñuy bàyyi ñu nekk ci aada du ñu bàyyi aada mbokk yi maa ngi dégg sam bopp nañu sax ci sunna ñu am ñu ñàkk sunna moo ñuy libéré shabab istamsiku bi hadi nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam fexeel li Oumar Sall indi nga indi texte bu ko tontu indil texte bu ko tontu yaa xii loolu mooy xam-xam ayabtaxuuna indahum al idda fa inna al iddata lillah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 إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم دانو فيكون سنوي باي ني نيك تي آدا دونو باي آدا موكي ماغي ديك سام بوب نا ني صح تي سنة ني ام ني نياك سنة مو ني ليبر شباب استمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم fexeel li Oumar Sall indi nga indi texte bu ko tontu indil texte bu ko tontu yaa xii loolu mooy xam-xam ayabtaxuuna indahum al idda fa inna al iddata lillah jamia indil ko preuve yu leer nañ indil ko xam-xam ki ñëw war koo contrer même bu jàppee ne li ñuy wax ci mbooloom la nekk mais na ko argumenté génneel xam-xam waaye doo génne. membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membaram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gëna mëna mën jëm ci kanam ngir mu gëna mëna jëm ci kanam ngir mu gëna mëna jëm ci kanam membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sippooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam